ci kër gi soigné ma ci kër kan ma bañ a faju mais dañ maa dañ maa weer daf ma weer parce que foogoon na ne su ma weer damay weeree su ma wooyee damay jëñ te image yu dof Sénégal boo ko xasee ba am du dañ mais je me suis battue je me suis battue parce que xam naa li mu bëggoon munu ma yàq il est petit pour ma yàq ma mënu ma woon a yàq te képp ku ànd ak moom kenn mënu ma yàq nit ñu ko yàqee noonu loolu la def parce que bu nekkoon un homme un homme duñ naan jëkkër jëkkër ju baax bu nekkoon jëkkër ju baax la ma yàlla may daf ma naroon woowal waa sam municipal sama biir kër ñu naxtaan ak man piqûre ma d'accord ma nelaw li may lekk ñu naxtaan ak man ba li mel ñu def ay somnifère li may lekk mais defuñu ko dañ maa forcé mbedd bi yëpp taxaw waa almadi bi yëpp taxaw waa ngoor bi yëpp taxaw mu dugal ma may yuux bàyyi leen ma bàyyi leen ma bàyyi leen ma demuma ñu forcé ma ma dem ñu forcé ma ma dem fànn ñu piqûre ma piqûre boo xam ne sama yaay fekkeewul bañ ma doon piqûre te bu leen fàtte ni am na benn animatrice bu génn njaara faam woowee ne ma sama doom ma ne ko naam mu ne ma kaay sama kër mu wax wax wax wax ma ne ko kaay sama kër ma ñëw këram parce que j'ai confiance en Mame Diarra Fam du ma du ma ma du ma ma du ma def lenn loo xam ne du dul sama santé la ak du dul sama bien la je la connais et confiance moo koy xam du tey depuis Karim Wade laa xam ma Diarra Fam donc xam naa ban genre maman la ku am xol la ku digne la mam jaara faam mu ñëw wax ak man ba ma bàyyi lépp mu sedd mu delluwaat sama kër ma jug pour dem bureau récupérer sama titre foncier loolu ma war a loolu mu tëj ma ma jug dem bureau pour récupérer sama titre foncier ba ma egsee si bureau bi ma laajte ko ñu ne ma nekku fi man ne leen woowal leen ko dama bëgg a récupérer sama këyitu kër xam nga lañ lañ ma wax toogal xaar ko man dama toog xaar ko gis euh, waa cybercriminalité ñoom ture ñëw am naa seede parce que jour boobu sama ñaari garde du corps mi ngi fa woon Babacar mi ngi fa woon Koukouma mi ngi fa woon xanaa xamoo nit lu muy wax te am seede rek dafay neex am naa ay témoins oculaires fu mu yem na neex Babacar mi ngi fa woon Koukouma mi ngi fa woon Koukouma nanguwuma bàyyi parce que Koukouma mbër la mi ngi fa woon mi ngi fa ba mu ñëwee ma ne leen lu xew ñoom dañ lay arrêté dañ lay yóbbu cybercriminel ma ne leen lu tax nga ma yóbbu cybercriminel pour la lan laa def ñu ne ma danga am ay saaga yoo def ci internet bi c'est des injures publiques man ko yow Touré xam nga ma man xam naa la pourquoi bindoo plainte adressé ko sama adresse pourquoi bindoo plainte indi ko sama kër jox ko chef de quartier bi mu indi ko sama kër parce que plainte noonu la dëkk bi dafa am yoon buñ la plainté dañuy dem ci chef de quartier bi jox ko plainte bi chef de quartier bi indi la plainte bu dee plainte bu urgente la ñoom ñooy ñëw sa kër tax ñëw leen sama kër xamuñu fi nga dëkk mën na leen si foo ki leen wax ngeen plainte ma muy mbergaan mu ne ma naam man ne ko xam na sama kër lu tax ñëwut sama kër lu tax joxu leen sama adresse kër ngeen jëw jël sama foofu moo gënoon a am sutura ñu ma non fii leen lay jël see daal l'essentiel la loi fii leen lay jël see mais que yor nga sama yor nga ko parce que fii laa ñëwoon plainte Khalifa rappeur man dama plainte Khalifa rappeur lu tax jël see woo leen kii woo leen euh, xamante nañ parce que depuis problème Khalifa rappeur lu tax woo ma téléphone non non la loi c'est la loi dañuy topp dañuy topp dama leen topp ñu ne waaw dama leen topp ñu ne waaw man dama leen topp ma toog ci oto bi ñu négocier négocier négocier négocier négocier négocier finalement ma topp leen ba ma leen toppee juste une heure de temps après ci réseaux sociaux yi Nabou Dash a été arrêté par la police cybercriminalité Nabou euh, Mbergane article mi ngi fi naa leen ko publier après Mbergane arrêté na Nabou arrestation musclée de Nabou Daye on a euh, ñëpp di ko wax dama def la cette période la def naa la une des journaux ñëpp di ko def journal dañ maa arrêté woon pour lan parce que dama wére di di saaga même bu ma doon saaga sax même bu même bu ma wéroon di saaga sax am na beneen taxawaay bu ma waroon taxawee mais pas nii mais anyway ma encaissé ñu dem ñu dem ñu dem cybercriminalité ñu def seen seen seen seen seen kii yooyu noonu seen audit ñu def noonu def def bind léegi ñu ne ma dañ lay yóbbu fan pour xool sa état sa état mental parce que euh, normalement ku am des ku am dépression ak wala ku am instabilité mentale kooku yoon waxul dara ci yow maanaam daf kenn du ko tëj yàlla daf ñu yóbbu ma fan bañ ma yóbbee fan la dame m'a posé des questions j'avoue que j'étais wax ma man ma wax ak moom wax ak man ma wax ak moom ñu delloowaat ma ñu yóbbu ma garde à vue ba ma yóbbee garde à vue ma fanaan foofu ñu xëy 6 heures du matin yóbbuwaat ma fan nee na woon dañ may pikiiraat ma ne leen bi moom ku ma ci pikiiraat ku ma ci pikiiraat nga am problème bii moom damaa taxaw ne seen pikiir yu bëri yi ngeen arrêté ko une fois ça passe mais là moom ça suffit parce que vous ma du ma nangu ñu may pikiir ay pikiir yoo xam ne damay damay damay dem ba accro ci médicament bi et je ne sais pas lu ñu may pikiir j'ai refusé si laa woo fekk ma foofu ak benn xaytam bu ñu naan benn ñoo fekk ma foofu et tout ça li tax ma expliqué sama bëgg ngeen xam fi ma jaar fi ma jaar ba taxaw ba ne bëggatuma sëy bi fi ma jaar dafa bëri dafa metti képp ku fa jaar munoo nekk nii à cent pour cent il faut que ngeen bàyyi ma suma chemin bi ma jël ma takkali koog ma parce que mooy li gën ci man. c'est dur émotionnellement c'est très dur c'est très très dur te gis ma fii képp bépp jigéen bu am sama âge 30 ans cinq ans nga dundu lii nga mën mënaat am épaule pour continuer sa liggéey c'est que tu es une courageuse tu es une patente. histoire bi dafay yàgg dafa metti li ci xew dafa bëri ba ci sama ëmb bi ci xew dafa bëri. li ma wàgg def dafa bëri dafa bëri te dama ko waat ci kaamil amul lenn xam ne dama ko ci dama ko ci dama ko ci kii Mbaye Diop loo traité associé je ci question amul lenn loo xam ne euh, euh, euh, yokk naa ko ci parce que dama ko waat ci kaamil bi ma dem ba ci sama ëmb bi neuf mois de grossesse nga ëmb ko gisoo sa bàyyi doom man moo ma dal neuf mois laa toog neuf mois yoo xam ne gisuma sama bàyyi doom lim ma def dafa bëri maanaam ba mu defee li muy def noonu yépp ba ñu ànd ju boobaay ba ma ëmb neuf mois la toog juróom-ñeenti weer gisuma sama baayu doom neuf mois defoon naa benn live ak Kaliphone ba wax ko mais période boobu j'étais pas xam naa stable te pas j'étais dans les émotions pourtant waxoon naa ko je suis restée neuf mois sans le père de mon fils neuf mois ma ëmb ko ma ëmb neuf mois wootewul settiwu ma lekkuma un franc maanaam dépense ñun xamoo leen kii li ma def yëpp ma tur ñu ne ñu indi leen ci kër gi ñu jàpp ma ci kër gi ñu ma ci kër kan ma bañ a faju moom bu deewee xam naa ni yàlla li ma def yàlla dina ko ko delloowaat loolu simple te beneen bi ci topp mooy su déclaré wul Bamba fii ba weer bi di dee balaa Bamba di am Bamba mi ngi am trois mois nii su ko déclaré wul balaa fin du mois bi lépp lu ma ko xamal dinaa ko commencé di wax un par un un par un ba keroog sénégalais yi ak ay mbokkam dem wax ko ne ko demal déclarer sa doom gis nga jullit jullit dafay moytu tooñ kilifa dafay dox yëfu kilifa soo amee sa doom bu góor mu tuddee ko sa sëriñ muy Ahmadou Bamba boo ci rusul ndeyam rus ci ki ko tuddee nga jël sa doom tuddee dem déclarer ko tuddee sa doom sant jox ko mu am tur mu am sant parce que c'est la première fois man ma am doom papaam ne du ko tudd ne ne du ko du ko du ko déclaré déclaré wu ko parce que xam ne bu ko déclaré dama koy topp ci yoon man topp ma ko ci yoon jënt yu ma ko fii laa koy waxee sénégalais dégg ko aw ma sa topp ko ci yoon mais lim may def defu ko de boppam la koy def parce que l'essentiel moom bu ñàkkoon fayda xam ngeen fii ñàkk fayda moom bu ñàkkee fayda ba ñëw tudd doom bu mu jurul moom moo ñàkk fayda te xam naa ni waa ji amul ay intention yu bien si man kon su ma yàlla mayee doom ak moom c'est parce que doomam la te nee naa ko man bu la neexee moom sax cas bi dafa bëgg a bëri critique parce que man doom ji mi ngi fi doom ji doomam la amuma ci lu ma ci nëbb doom ji mi ngi sama kër yaay xoolal nee naa ko ba mu juddoo nga waroon def test ADN wax ji jeex mais daf ko dafa maanaam dafa dafa dafa am wax bu mu wax wax bi rëccu ko dafa rëccu wax bi mu wax que doom bi juruma ko dem ba si biir am si kersa bu mu ci am kersa sinon kon may moom dama def test ADN dem ba fin woo ay journaliste leen test ADN baa sama doom wax ji fin mais li may def nii xoolal safuma yëngaluma frégewuma ñentewuma parce que bu nekkul woon doomam du du ñëw sama kër yaa di ko tudd nekk doomam nag nekk deretam moo tax mu ñëw tudd ko bu pare ànd ak ay doomam si hôpital bi pour présenter leen seen rakk mais nag gis nga kilifa da nga def yëfu kilifa boo amee doom danga koy dem déclaré mu am kayitu juddu mu am carte d'identité am passeport mais nga teg sa nga dudd jur sa doom sànni ko ci yaayam dox sa dox naan man am naa yeneen doom am naa ni yàlla noppi na te yàlla yàkkamtiwul kenn fii gis nañ fi ku ne gis nañ fi Ndiouga Kébé gis nañ fi ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne jaar na fi suuf si suuf si yóbbu na ku ne con sekk nee suuf si wal na ndaanaan bu ne te ku ne yàlla amul rek yow bu si yëmbal xiyam dalaa ump futur de ça